Wassare TV askanu Kër Mangari Kër Tambor maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziyaare bu baax di leen masawu coono yaay booy guddi na euh, ngoon ba léegi ngeen toog di séentu ganu Modou Sarr sonn ngeen waaye xàddiwu leen ndax seen doom moo leen ko jaral kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci waxtu wii fii ngeen toog di ñu xaar xam leen ni lu rëy la ci ñun maa ngi gërëm chef de village ak Serigne Daouda mi nga xamante ni moo wax ci turam maa ngi nuyu di gërëm Serigne Saliou di la gërëm bu baax ci témoignage yi nga xamante ni def nga ko wax nga dëgg <laughs> xam nga ma bien am xam nga dara ci man ci sa malik si ba léegi histoire yi nga fi nettali dëgg la wax nga dëgg Pape Moussa suma xarit la suma rakk la wax nga dëgg di te remercie très sincèrement di remercier aussi Serigne Daouda euh, donc ci kàddu yi avec le Forum Civil pense que liguey nañu wax nga dëgg ñu la remercier bu baax a baax a baax may remercier aussi soxna si nga xamante ni jël na ci kàddu wax ci turu jigéen ñi am naa mbégte ñëw fii ci Kër Mankari fekk eh, si fi suma xarit ma doomu ndey le grand gelawaar sa un homme digne am personnalité ku am engagement am taxawaay am pas bu jàppee du bàyyi moo tax ñu am contentement bu mag ñëw fekk si ko wax na dëgg bi ñu xamante ak léegi léegi mu am ay at maa leen jiitu université ñi ñëw fekk ma fa ma féete leen tuuti mag moo ko Pape Abdoulaye léegi mu am ay at waaye wolof yi dañ nii lu yàgg dëgg la loolu dëgg la parce que man ak moom léegi mu am ay at waaye booba ba léegi fu ma taxaw taxaw na fa lu ma nekk ma nga ci lu ma soobu ci politique léeg-léeg mu lëndëm lool xam na li may wax ay jeune lañ parti bi biñ koy tax biñ koy tax taxawal di ko tabax ñoo jàppe woon ay xale yuy làmbatu mu ñëw taxaw kon ñun amuñu fayam déedéet Modou mi ak Abdoulaye ak Cheikh Mbacké bokk na ci jeune yi nga xamanteni ñoo jëkkal laxasaayu jëkkal taxaw gëm projet Babacar Diop booba dégguma docteur ndax sama njàng matagul sax boobu mais dañoo teel a comprendre xam ni yoon wi du yomb de mais ñu nekk ay xale wutuñu lu yomb ñoom ndax ñoom ñi bu fekkoon dañu doon wut lu yomb dañuy dem ci pouvoir ak ñi joxe xaalis ak ak i yooyu mais déedéet gëm seen bopp gëm seen jàng am seen i dafi formation dem di liggéey nekk ay gelawaar pur loolu mooy gelawaar dunde sa ñax moo tax ma am fierté ci ñoom dem iniversité jàng am diplôme état bi def ay concours ñu réussir seeni concours nekk ay nit ñu libre libre dugg ci politique ngir servir seen dëkk ngir servir seen réew ngir servir seen askan loolu moo tax ma gën a fonk Modou Sarr mi kon su ma ñëwee muy jeune nga politique nag nañ ko wax ñiy woote moom bari na ku fi bàyyee ñëpp bàyyi fi parti yëpp gëm projet Guelwaar ak projet Babacar Diop kon ñun war nañoo xam kan mooy Modou Sarr war nañ koo xam ndax faneen fu ko neexoon dem te su demee dinañ ko accueillir kàddu gi

ci yéene boobu ma am bu Macky Sall jeexeelee ma remplacé ko ñi wër senegal li ñuy wax tournée politique wër senegal waxtaan ak askanu Sénégal waxtaan ak suñu yaay yi waxtaan ak xale yi waxtaan ak mag ñi ngir mag ñi ak jigéen ñi ak xale yi ak waa réew mi xam lan mooy suñu yéene ci réew mi lan mooy suñu projet ci yéene ci ci réew mi lii ñuy def nii tey jii ci Kër Mangaare def naa ko kawlak ñetti fan def naa Jurbel ñetti fan di ko wër def naa ñetti fan Louga di ko wër def naa Saint-Louis ñetti fan dem naa ba Fuuta def nañ juróomi fan ci département Tivaouane démb la ñuy doog a dugg département Thiès démb juróomi fan dëkk bu ne ñi dem fa ngir waxtaan ak askan boobu waaye ñun bu ñu dëkkee Thiès nekk meeru Thiès bokk de Thiès bokk de département Thiès bokk de região Thiès Kër Mangaari bokk ci Thiès bokk ci département Thiès bokk ci région Thiès ñun doomu Thiès ñu mën a yaakaar jàppale waa Kër Mangaari ñu war a mën a yaakaar jàppale waa Tassette Kër Mangaari mooy Thiès Thiès mooy Kër Mangaari ñoo département rawatina Modou Sarr di suma ñu jëm élection ñu bëgg waa Kër Mangaar yi jàppale ñu imaam yi ñaanal ñu suñu jur yi ñaanal ñu mais xale yi ak jigéen ñi mobiliser wu jàppale candidat Modou Sarr élection wax na leen ko ni mu tëddee ci réew mi fi mu toll nii pour nga bokk dafa am ay barrage bi nekk ci suñu kanam fi mu toll nii mooy parrainage parrainage boobu su ngeen bëggee candidat Modou saar Babacar Diop maire Thiès bokk ci yéen a ci mën a jàppale Modou gunge ko nan ngeen koy jàppale nan ngeen koy gunge mooy da ngeen di fexe seen carte national d'identité yi ngeen dajale ko ngeen jox ko Modou Sarr jël ci lim ciy jël delloo leen ko ngeen jàppale ko ngeen gunge ko ba candidat nekk président bu ëllëgee mu jàpp loxo président de la république dugal ma ngaari fii bu boobaa nag lu ngeen di jooy aw yoon ci laa jaar bi may ñëw gis naa lépp lu ngeen di jooy courant ñëw na fi gis nañu lépp lu ngeen di jooy ndox ñëw nañ fii dégg nañ leen baax baax baax lu ngeen di jooy seen doom yi bëgg ñu tekki ñëw ñibbisi teral seeni yaay teral seeni baay teral seeni mbokk li xew ci réew mi yëpp gis nañ loolu moo tax ñi politique loolu moo tax ñi taxawal parti loolu moo tax ñi nekk candidat pour jiite réew mi ndax politique bi nekk ci réew mi ñëpp gis nañ ko ñëpp a koy dund jafe-jafe yi yéen yéen a ci lëndëm këriis yéen ci jafe-jafe ndox am problème mu santé am problème mu seen doom yi seenum njàng lépp jot na nag réew mi di Sénégal ñi nga xam ni réew mi yamul ndakaaru rek defar ay pont baax na defar ay tali yëpp baax na mais jot na ñu xam ni dëkk yi ci àll bi réew mi la ñu bokk carte d'identité lañu yor ñëpp jot na jot na dëkk yi ci àll bi bu ñu génnee passeport lañ yor ni ñëpp ay passeport ak ay carte d'identité sénégalaise mais loolu état moo war a organiser waat système bi nga xamante ni noonu lay séddalee alalu réew mi ba dëkk yi ci àll bi ci boppam ñu mën leen ci boole su ngeen faralee may dégg ci samay wax da ngeen di dégg manaan man may candidat néew gi doole yi da ngeen koy faral di dégg te su ma nekkee président maay nekk président néew gi doole su ngeen déggee ma koy wax ñaar ba ñeent lay xalaat maa ngi xalaat dëkk yi ci àll maa ngi xalaat aussi quartier populaire yi nekk ci réewu taax quartier populaire yi nga xamante ni dañu leen a bàyyi ñoom it ci ndóol ak lëndëm waaye surtout aussi maa ngi xalaat jigéen ñi jigéen ñi ak seen jafe-jafe am yéene jàppale leen taxawu leen jàppale leen dooleel leen bu baax a baax kon projet boobu la ñu am ci Sénégal am ko ci réew mi yëpp projet boobu réew mi ni muy doxee ci indépendance ba léegi gis ngeen ko gis ngeen ko yéen Sénégal amee indépendance ak léegi yàgg na amu leen courant yéen a ci lëndëm yéen a ngi ci mar ba senegal amé indépendance fi aduna toll ñi ni nii sori soriwul aw yoon wu baax sax mënu leen ko am lolu moy politique gu senegal lolu mooy politique gu Macky Sall fukki at ak ñaar nga yor ko am rew ba wara tegal sa doomu rew di dé ci géej ci ay junni junni junni ndax ñak yaakar lolu moy bilan Macky Sall kon do bu politique bu bon lañ ci bëgg jëlé nan lañ mën a tabaxaate Sénégal bu bees boo xamante ni xam nga moom lay wax ni yàgg nañoo fal président nañ Abdou Diouf fal nañ Abdoulaye Wade fal nañ Macky Sall dafa jot nag ñu fal président boo xam ne dafay dindi ndóol dindi ci sous développement defaral leen ay yoon indi courant xale yi jàng jigéen ñi mën a am liggéey ci boppam Sénégal naat loolu mooy loolu mooy solo sol fal président moo tax nag ñi yaakaar ci li xalé yi di wax ma dañoo soxla président xalé loolu dama pri xalé yi di wax président xalé lañu soxla loolu nag yéen ñu ci mën a jàppale rawatina yéen jigéen ñi ngeen jàppale Modou Sarr ci parrainage bi ñu jëm ngeen jàppale candidat wam dañoo bëgg a gagné présidentielle yi ñu jëm Modou Sarr candidat bu candidat nii rek bokk pour déclarer candidat bu liggéey ñu woola déedéet dama ma bëgg presiden nekk le prochain président de la République du Sénégal ñu fi indi ba heure bii tëj bureau di taw di wër Sénégal suñuy oto di paan léeg-léeg mu taw ci ñun mu naaj ñu mar ndax Sénégal ñu ko jaral ndax yéen ñu ko jaral mais projet boobu pour mu taxaw da ngeen ñi ciy jàppale politique naxee moom jeex na ci réew mi sagaru 5000 francs sagaru 1000 francs loolu jeex na kon di des ngeen jàppale seen doom Modou Sarr seen doom la yéen a ko wax waxuma ko de di ngeen xam ci moom li baax yéen a ko waxal seen bopp li ko dëkk bi jaral yéen a ko waxal seen bopp moom demul Dakar fàtte fii de yéen a ko waxal seen bopp bu école tëjee day ñëw fii vacances bu vacances jotee day ñëw fii yéen a ko waxal seen bopp mu am yéen ci dëkk bi bëgg leen jàppale yàlla dimbali ko mu xam koo xamante ni su ngeen ko jàppalee day nekk président de la république seen doom nekk président de la république jàppale leen ko bu boobaa seen yoon wi yoon wi dina problème mu yoon wi dina réglé wu problème mu courant bi dina réglé wu problème mu ndox mi dina réglé wu problème mu faju dina réglé wu parce que Modou mii ko am taxawaay la ci parti bi parti bi mu nekk kenn yabu ko ci de bu ci am taxawaay la su ngeen gisee délégation bi ñëpp mobilisé wu ci guddi gi ñëw ko ci waxal mu ni dinaa fekk muur ba ba mu deug parce que dafa am taxaway bop ci mu tax mu jaral ñepp ñew kon ñu bëgg encore une fois de plus gën jappalé ko ci projet bi sampalé ko drapeau Guelwaar fi ci taseet fii ci Kër mangari ñu leen di sant di leen gërëm wasalaam Jawa Sari TV, Wiro Adios.